leen Seydina Omar Touré ngir nag daal di section de recherche yéen a kaay na ñi nga xamante ni tamit ñooy avocat Ousmane Sonko sàkku nañ ci doyen de justice mu daal di nga xam ne mooy réquisition téléphone Adji Sarr ak Sidi Ahmed Mbaye ba xam ñaar ñi lan la waxaante bis nga xam ne moom la Adji Sarr di tuumal Ousmane Sonko yéen a kaay gi di enquête Sonko daal nay signé ci lu jëm la sax ñu xibaar naan ñu bi ñu dénk wàllum wér gi yaram ci ji mi dana leen di yóbbu li nga xam ne mooy seen scanner boo xam ne 32 baret la yéen gi nee yàggatul dara ab radiologue danañu ko daal di ca diwaanu hôpital régional bu Kaolack yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ginnaaw Bamba Fall mi nga xam ne fekk na Macky ak Malick Fall mi nga xam ne mooy maire Diourbel te demoon ci élection locale yi ci coalition wàllu Sénégal la kaay gi di bés bi xëy diñu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllum permis à point loolee la ñu bëgg a indi ci réew mi waaye nag góor xuma daat nay wax ne bëri na lu des loo xam ne des na ci mbir yi bala ñuy wax mbiri permis à point yéen a gi di vox populi xëy diñu xibaar naan ñu ci àdduna bi bëri na ay njëg yoo xam ne dafa yokk ba mara yi journal bi neen lu jëm ci wàllum diwlin gi ak wàllum ndawal ak lu soxal wàllum meew mi ak suukar si ba si ceeb bi yokk a mujjee tas lan moo tax ñu daal di koy tas di yaroo wax na nag lan ko amal ci wàllu wee laaj nañu ko na ko groupe bi nga xam ne si nga nekkoon di alif te ñu tas ko ndax jàpp ngeen ne nekkoon ñëpp bis dina ñëw ñu daal di àndaat gi di bés bee xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum suukaru koora am na ñoo xam ne oto la ñu joxe suukaru koora ñii joxe ay bisu ora ñii joxe ay bàgg lii la joxe ne ay cadeau cadeau am na ñenn ñoo xam ne bu ñu ko joxewul lu ne nag moo leen ciy fekk yéene kaay gi di las xëy duñu xibaar nan ñu jox ko ak Macky ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkk ca diwaanu Kolda dañoo interpellé ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay mi ci réew mi di professeur Moussa Baldé ci lu jëm nag ci wàllum renforcement équipement agricole ak lu jëm ci wàllum accès à ak lu soxal wàllum jiwu loole nag ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi di professeur Moussa Baldé daan leen ci indil ay leeral waaye nag daan leen di fàttali na leen 2013 lu toll ci 1200 hectares rek la ñu doon bay fi nga ne mooy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 nice.